voilà xibaar yi fàtt yi ñu tàmbale ka ak inauguration TER express régional ñu koy amal tey jii ci ngoon euh, muy euh, train boo xamee ni nag euh, première la fii ci Afrique de l'Ouest Afrique francophone de l'Ouest TER bi nag gis ngeen coow li nga xamee ni moom la àndaloon mu bari lool lool lool ba opposant yu bari ni njëg bi nga xamee ni moom la ñu déclaré jarut loolu waaye euh, finalement malgré report yi nga xamee ni am na ci euh, tey jii euh, la ñu koy inauguré te dégg ngeen sànq ministre bi nga xam ne mooy yor wàllu transport Mansour Faye di ñu xamal ni ci diirub fukki fan ak juróom ñi ci bëgg déplacé wu mën nañ ci yéeg te kenn du fay dara. ñu wax ci coowal phobie yi nga xamee ni euh, moom la ñu fi doon wax ci ajuma jee ñu génn yëf yi nag mu ngay évoluer xaalis bi dem na ba toll ci euh, juróomi euh, milliards Vox Populi tey jii ci xëtam bu njëkk dañu xamal ni daal deux milliards de CFA yoo xamee ni billet noir la ci cinquante ak cent dollars la ñu fekk ca Cambérène te tamit ki nga xamee ni moom la ñu yaakaaroon ni moom mooy cerveau coow li du malien du du du du Gambie ab malien la euh, les échos tamit di ñu xamal ni euh, commissaire euh, El Hadj Sow ak agent am yi ñoom daal jéye mënoon na leen dal ndaxte ba ñuy dem di jàppi ji faussaire yooyu ab camion moom moo fëloon seen i oto waaye gaañu gaañu yi mujjul euh, graaw euh, ñu wax ci wàllu tàggat yaram équipe nationale bu Sénégal di amal euh, di door tey ji regroupement am bi nga xamee ni moom lay préparer pour dem ca Coupe d'Afrique bi fële ca Cameroun. loolu nag tey jii lañu ñu koy euh, tàmbali euh, après le 30 décembre dinañu dem fële ca palais présidentiel pour jot drapeau bi euh, njiitu réew mi moom moo leen koy jox laata ñuy dem ca Rwanda euh, Kigali wéyal seeni préparation am fa semaine laata ñuy dem ca bafu Bafoussam Cameroun foofu nga xamee ni euh, fa la ñuy amale euh, compétition bi ñu wax ci wàllub Ligue en sixième journée démb la ñu ko doon amal résultat yi nag ni la tëdde Dakar Sacré-Cœur daan Ndiambour ñaari bal ci dara Casa dalal Seneps daan ko benn bal ci dara Jaraaf de Dakar daan Jambar ñaari bal ci dara US Gorée euh, def fekk ji Mbour Petite Côte daan ko ñeenti bal ci benn génération foot euh, ginnaaw bi mu toogee lu yàgg gañewul euh, renoué ak li ñuy wax le succès dalal AS Douanes daan ko benn bal ci dara Linguère de Saint-Louis moom dafa dalal fële ca Ndar AS Pikine daan ko ñaari bal ci benn Tëngéej FC bi nga xamee ni dafa ñàkkoon journée bee passé nag dafa fekk ji Guédiawaye Football Club daan ko ñetti bal ci dara ci classement bi nag Casa Sport wéy di jiitu euh, ci euh, bopp classement bi ak 12 euh, points Teungueth FC tegu ci jël deuxième ak 11 points Jaraaf nekk ci ñetteelu place bi ak 10 points 10 points yooyu nag am na ci jongante boo xam ne kenn comptabilisé gu ko mooy bi nga xamee ni moom la amoon ak Pikine te mu juróon coow ba tableau nag AS Douane moo jël treizième am 4 points Ndiambour jël quatorzième nekk lanterne rouge ak ñaari poñ. situation bi nag di commencer euh, doy waar ci waa Louga yi Fatidia merci beaucoup Cheikh Tidiane fii ak euh, booru 7h30 ni nga dellu siwaat ñu gën a